asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki argenti mbokki diaspora bi maa ngi leen di nuyu man la Cheikh Fall Thioune secrétaire général fii ci Argentina ci droit des Diourbel day dem ci kanam maa ngi nuyu mbokki Sénégal foofu nga xamante ne fa bàyyi ko di nuyu mbokki njaareem gi nga xamante ne fa la ñu dëkk di sunu association droit des Diourbel day dem ci kanam te njiit la di sunu coordinateur Cheikh Modou Guèye Sanebe. ak mboolem équipe bi nga xamante ne ànd nañ ko ci 3D Diourbel day dem ci kanam tey jii ñu ñëwoon fii ci Touba Argentine ci studio pour bëgg a leeral 3D Diourbel day dem ci kanam li ko tax a jóg doomu njaareem yi nekk fii ci dëkk bi yëg ko xam ko donc xam nañ ko diaspora bi tim xam ko. kon ñu ngi leen di nuyu waaw ñu ngi ànd nag ku ñuy wax suñu coordinateur euh, Serigne euh, Serigne euh, Serigne Modou Ndiaye. ñu ngi ànd ak sëñ Baara. muy membre boo xamante ni mën nañ koo wax ne ci ay ndoomay tànk la takk ñu ngi nuyu di Serigne Fallou moom mi nga xamante ni moo ñu jàkkaarloo muy ti membre boo xamante ni moo ñu représenté foofu ci ONCE. ñu lay gërëm bu baax Cheikh Fall Thioune mooy suñu gan fii ci Touba Argentine TV ci lëkkaloo mag di Deal Energy ñu dalal leen ci taxawaay boo am solo boo xam ni itam tudd na tur bi léegi muy Jurbel day jëm ca kanam. loolu tey bu ñu ko mënoon boo ñu ko mënoon faram lan mooy sabab bi lu ko tax a jóg lan mooy jëmam luñ ci mën a déggee. waaw loolu danañ ci sawar ci wax ndax Jurbel day dem ci kanam référence bi Touba ci kanam la te dafa am jëm joo xam dafa ne ci réew mi muy suñu kilifa. muy grand Ndiaye mii nga xamante ni moom la ñu feggoon ni nga xamante ni moo waroon toog fii sax wax waaye mënee mëneekutoo wax moo tax. mu jiitoon ñu man mi nga xam ne moo ci gën doon gone. Ah, xalaatoon ko ànd ñu ci mel ay paate Euh, ak ñoon Fallou mbay ñi ba nga xamante ni ñëpp yëg nañ ko fii ba lépp rek dem ci réew ma ak bëgg Fallou Thioune maa ngi tuub tey jégalu nga xamante ne moo ñu représenté fii. nekk Mar palaata jamono yi mu dem Diourbel vacances. dem Sénégal moom it ñu ngi koy nuyu moom moo ñuy représenté fii mooy sunu président man maay des général bi. grand Ndiaye mooy euh, mooy trésorier bi. suñ paate mooy vice mooy vice président bi. waaw kay. moom it nag xalaatam Jurbel day dem ci kanam ci moom la jógee. jóge fi dem nag Sénégal mu dem ba law. doomu njaareem yi nga xamante ni ne ci diaspora bi yëpp yëg ci. Mhm. sabab bi nag moo di dajale doomu njaareem yi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi. ngir bëgg xar kanub jurbel bi nga xamante ni mel na ko ñu sance ko ku ne xam na ne jurbel lëndëm na lëndëmaay goo xamante ni. Mhm. boo fa wàccee guddi da am jafe-jafe mbalit ma bari na. Mhm. référence bi nag di Touba ci kanam gis nañ ne Touba ak Njaareem benn la. Mhm. dëgg la Touba ci kanam yoonu murit yëpp ñëpp a ngi ci. waaye Njaareem nag dëgg la ay murit a ci waaye dafa boole tijaan yi xaadir yi catholique yeeg yooyu yëpp ci droit des jurbel day dem ci kanam ñu ngi ci biir. nga xamante ni bu doonee fii ci Argentine ku ci bëgg a bokk ne carte membre bi 200 pesos la boo ko jëndee sag weeru dee nga joxe quinientos am na ay seetluur yoo xamante ni ci ci biir dëkk bi ku ci mel ne onse boo demee ci sëñ Paate lan la ko jaay boo demee boo demee euh, retiro sëñ Baara mii moom moo lay jaay carte yi boo demee tiim ci wari xaadim xumba ku ñuy wax tiim Fallou mbay moom moo la koy jaay boo ñëwee cotisation man maa la koy jaay ci garalia bi boo ñëwee tiim caution ba tey jii sunu coordinateur moom moo la koy jaay muy grand jaaj bu doonee Sénégal nag ku ñuy wax Cheikh Modou Gueye Sanebe ak équipe bi nga xam ne na ko moom moo lay jaay carte yi carte yi mu ngi toll ca réew ma téeméeri dërëm chaque weer wu téeméeri dërëm. bu doonee ci réew yi nga xamante ne diaspora yi dañoo am nag ay cellule yu bari yu nekk ci diaspora bi. ku ci mel ne Italie Serigne euh, Modou Diagne la. sëñ Ablaye Ndiaye moom mooy président ba. boo demee Gabon Baye Moustapha Thiam boo demee Côte d'Ivoire sëriñ Massamba Gueye boo boo demee sëñ sëñ Massamba Gueye boo demee Chine euh, euh, sëriñ Babacar boo demee Belgique sëñ Ibrahima Wagne moo ñu fa représenté boo demee Cap Vert ku ñuy wax Basirou Faye nga dem euh, Mali sëñ Cheikh Faye nga dem nga dem France sëriñ Khadim Gueye moo moo ñu représenté nga dem nga dem Maroc ku nuy wax Basirou. Basirou Faye moom moo ñu fa représenté. waaye am nañ réew yu bari ci euh, ci ci ci ci àdduna bi yëpp ay cellules yoo xamante ne ñuy représenté ñoo ni tiim ñu ngi dox. comme ñu nuy doxee dajale doomu njaareem yi chaque weeru dee ñuy joxe ndax jurbel day dem ci kanam alal ji nga xam ne moom lay am moo ngi koy amee ci doomu njaareem yi nga dem Espagne tim ku nuy wax Serigne Moustapha Gueye moom moo ñu fa représenté doomu njaareem yi alal jooju ñuy am moom mu la ñuy delluwaat ca dëkk ba. ci ginnaaw jomono yi ci passé defoon nañ ay limu làmp yu bare bare bare ñu léegi lay gërëm Cheikh Fall di suñu gan kon daal bu ñu la déggee da ngeen gis Touba ci kanam ak doxin bi nga xam ni moom la ñu sumb ca dëkk bu sell ba ngir jëmee ko kanam mu nekk loo xam ni it marqué na leen ngeen coppi loolu. bëgg dajale doomu Jurbel yi nga xam ni dañu nekk fépp ci àddina bi ngir ñu lëkkaloo di participer ci Jurbel uh-huh. ngir jëmee ko kanam man nga ñu wax kan ngeen door ak boobu ak tey lan geen réaliser. waaw waaw danañ ci sawar di la ko wax waaw référence bi mooy Touba ca kanam. Uh-huh. moom la ñuy roy euh, sabab bi biñ ko door ak léegi matagut at euh, bu nuy wax juróom-ñetti weer ci lay tolloo. ñu def ci lim bu am solo. Uh-huh. Euh, bi ñuy soog a door def deux cent soixante lampes ci ginnaaw. Kortege 260 ndam def ko ci njaareem. gépp nag koñ bu ne nag am ci li nga war a am. bi nu jógee ci lool ñu xam ne dëkk bi manqué wan nay làmp ñu waxaat doomu njaareem yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci njaareem ca dëkk ba. ñaxaat leen tàggat laat leen comme amuñu lu njaareem. te kenn ku ci nekk jàpp naa ne fa nga dëkk rek ngay tiitaroo. boo nee su ma amee alal dinaa ko delloo ca dëkk ba. Mhm. te nga dëkk ca dëkk ba am alal te dafa ko kooku moom yaakaar naa ne mhm. ah, moom turu dëkk ba moom jariñoo ko. Mhm. kan nag macha allah doomu jaare mi nga xamante ni nag bëgg nañ ko te di ci def te gisuñu dolli deux cent soixante lamp lañ dolli non asafula ñu dolliwaat junniy lamp mille lamp. muy junni làmp njaareem ngépp leer nañ ba nga xam am na lu reserver ci sunu euh, sunu euh, sunu bureau ba muy kër ma njaay ñang ci kër Cheikh Ibrahima Fall waaw loolu daal mooy sabab bi Touba ci kanam bëgg mel na nag ni Touba ci kanam mel mhm. dem ba nga xamante ne dañ am sunuy oto yu ñuy mën a tonnil mbalit ci dëkk ba ami suñuy euh, lépp rek yoo xamante ay jumtuwaay dem ba am yu ndaw yi dëkk njaareem. di fa liggéey yi nga xamante ñu ngi ci diaspora bi tiim bëgg ñëw tiim liggéey ak ñun tiim ñu liggéey euh, di leen woo nag liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj ku ne xam na ne xalaatoon nan ndax doon am sunu penc boo xamante ne am sunu panel international. di ci waxtaanee li ci xalaat lan la leen mën a defaree Jurbel dem jëm kanam penc mi nag ku ko jiite mooy Baye faa ci am. ànd koog ku ñuy wax Serigne Moutlum. Ah, di jégalu nag am na nag ci Amérique ku ñuy wax sëriñ Mouride mbakke di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér moo ñu fa représenté. Ah, ñu xalaat ci penc bi nga xamante ne ci lay nag ñoo cende. war nag songu mbalitu njaareem bi. te ku xam njaareem ku ne xam ne mbalit ma bari na. ndaxte bi yite woon ngeen ngir Jurbel leer def ngeen ci loo xam ni. kawe na seen jot yéen a ngi bëgg a jàll ci point bi ngir. Euh, dégagé mbalit bi nga xam ne ràññeeku na lool ci Diourbel. waaw waaw waaw waaw point bi nga xamante ni moom lañ jëkkee woon moo di lënd lëndamaay ku ne xam ne ne. Mhm. <coughs> munoo defar maanaam ko mbalit te leeraloo. te leeraloo mhm. waaw bi ñu jugee ci làmp yi nag fi ñu toll ay trois jours sax ci leen jeexale làmp yi. ñu mhm. ngi ko fu ñuy wax xojil. ba waa dëkk ba ñëpp génn euh, sant ñu gërëm ñu. seen xol seddu ci lool léegi nag ñu war a song mbalit mi. di ci woo doomu njaareem yi nga xam ne ngi ci diaspora bi ak ñi nga xam ñoo nekk fii ci Argentine ak yi nekk njaareem dama bëgg ngeen ñëw man ñu jàppale ci lii di droit des Diourbel day dem ci kanam doomu njaareem yi nekk fii maa ngi leen ciy woo ku ci bëgg ci carte yi boo ñëwee cotisation danañ ci am boo ñëwee onse sëñ parti dana la ko jox wala Fallou Mbaye boo demee retiré ku ñuy wax sëñ Baara dana la ko jox ndax ñun amuñu lu dul njaareem te yaakaar naa ne bu ñëpp réew yi nga xamante ni ñàkk nañ ci réew ma buñ defoon ni njaareem def dajale ay doomam def association boo xam chaque weer wu dee dana génne li nga xamante ne nekk na si seen poche delloowaat ko njukkal ci njaareem. Mhm. wala delloowaat ko njukkal sa dëgg kat jàpp naa ne Sénégal. dana avancé kenn du jàppale. Mhm. mu mel ni yi nga tudd yëpp loo xam ni état moo ko waroon a taxawee maire bi mi ngi foofu ci Diourbel naka ngeen lëkkaloo ak moom ci liggéey bu ni mel. waaw maire bi nag wax dëgg yàlla lëkkaloo nañ ci lëkkaloo bu am solo. Mhm. ndax bi mu ko yëgee deful lu ko. woo sunu coordonnateur Cheikh Modou Gueye Sané ba yëkkati koppar gu bari euh, bu dun ko sos tudd yëkkati koppar jox jox ko. Mhm. Euh, kii sunu coordonnateur na ko maa ko jàppale ndax ñun ñoo ko waroon def. Mhm. kan boo leen ñu ko defalee rek kan dañ leen ci delloo njëkkal woo ci doomu jaareem yëpp ku ne xam ne réseaux sociaux yi euh, def na ay vidéo yu am solo. Mhm. dëkk ba Bawal FM. ak rajo ya fa nekk yëpp ñu ngi ñuy nga xamante ne am nañ sax ay émission télé. télé bu mag ba RTS ak yeneen tey ngi ñëw. gis liggéey bi nga xamante ne doomu njaareem yi nekk ci diaspora bi. ak yi nekk njaareem def nañ ko. te état waroon koo def ñu kufri ñu ba nga xam ne génn nañ ci solo yi sax. loolu daal dañ euh, ciy sant suñu borom te xam ne sëriñ bi moo ñu koo fàggul. xëy na ndax am na ñu bëgg def loolu ci dëkk bi mënuñu ko. am na ko bëgg def ci yeneen i réew ci yeneen i gox mënuñu ko kan nag mun defee. dañ ciy sant rek ci doomu njaareem yi ne fii ci Argentine. ndax mbir mi fii la doore Argentine yi kan nag bu nu seetaan ba nga xamante ne réew yi ne ci diaspora bi di ci jëf jëf yoo xamante ni. Mhm. Argentine bi fii jëfuñu ko. loolu moom duñ jug di ci soññi. seen projet dafa yam ci xalam ngir njaareem mbalit mu jógee fa lamp leer ak yeneen yoo xam ne ay jumtukaay la yu bu manqué ngeen taxaw ci dañu gis ni tudd nga ni diaspora bi fees nañu lool ci ci di taxaw. ngir njaareem jëm ci kanam ñàkkul ni génn yi ngeen di def di génn am ngeen ci am ci itam ay connaissance yoo xam ni it mën ngeen a xalaat bouscar personnel yoo xam ni ëllëg ñu taxawal euh, dara njaareem ngir it euh, wàññi nga xam mooy ñàkkum xëyma loolu bokk na ci seen i projet waaw waaw loolu bokk na suñu projet te droit de Diourbel day dem ci kanam association bi dafa am ay kayit yoo xamante ni yu leer nañu la mm-hmm. nga xamante ni récépissé bi génn nañ ci xaar kayit bi mu génn euh, am suñuy compte bancaire mm-hmm. yoo xamante ni alal lañ ciy dugal ci lu leer nañ kenn du ko mën a génne te demoo ku ñuy wax soxna Khady Diaw ma ngi ci. Mhm. nga xamante ne mooy soxna sunu président bi euh, sunu coordinateur moom ci ñi yor alal ji ca la bokk. Mhm. Euh, am na ni projet ndaxte projet boo xoolee boo ubbee sunu email bi sunu compte Facebook da nga ca gis euh, maanaam que dindi mbalit mi ak. def ay projet yoo xamante ne doomu njaari mi nekk Jurbel te ku ne bawal moom xam ne bawal bawal nangoo liggéey la def. Mhm. am na ay liggéey yoo xamante ne ña ngi koy xalaat di ko mbëbët. Mhm. lu ci mel ne ci mbay lu ci mel ne ci jëndum gerte. Mhm. wala ci jënd leneen ak leneen di ko jaay delloowaat loo xamante ne alal danañu ko mën a am ba delloowaat ko ci biir dëkk ba. loolu lépp euh, xalaat nañ ko. te yàggatul léegi nii ndaxte doomu njaaram yëpp jug nañ ngir. bokk ci lii di droit des Diourbel day dem ci kanam te référence bi di Touba ci kanam kan jàpp na ne lii Touba ci kanam mel am ko du yàgg tuuti nii dana ko am nax te euh, euh, référence bi mooy moom te ñun ñoo ngi koy bàyyi xel ko visé ndaxte réew mu nekk rek chaque weer wu dee day génne li nga xamante ni doomu njaareem yi fa ne nañ ko teg nañ ko di ko joxe ñu ne lii réew mi moo ko joxe lii réew mi moo ko joxe total bi ñu wax ko dugal ko ci sunu panel international bi am na panel boo xamante ni am sécurité ba tey fépp foo xam ni immigré mi ngi fa te bokk ci Touba ca kanam bu mois dee dana xam ni euh, maa ngi maa ngi juum Jurbel ci kanam bu weer dee dana xam ni tey Jurbel ci kanam doomu réew yi dajale leen lii comme ni nga xamee ni seen référence mi ngi ko ñu defee muy Touba ci kanam ba lépp mën di leer ci bopp ñi nga xam ni dañu ne ci biti waaw waaw macha allah am na sécurité ndaxte am na ay ay ay ay ay pomel yu ko ŋànk mm-hmm. yoo xam ne yu dëgër la Euh, gis nan ay association yoo xamante ni door nañ même pas deux ans wala un an daal di tas la koy waral alal joo xamante ne mu ngi ci biir. ñàkk leer seen bopp waaye lii moom leer na naññ. Mhm. ndaxte am na suñuy compte bancaire yoo xam dindi ko yombut. Mhm. te euh, doomu njaareem yi gis nañ seen alal yi nga xamante ni jotoon nañ koo def ci ab limu deux cent soixante lamp yi ñu tas ko ca biir dëkk ba ba ñëpp gis seen bopp ñu gisaat leneen boo xam limu junniy làmp te nit moom doomu aadama li mu xam moo lu mu tëg bëtam li muy def boo ko gisee te nga xam ne li nga koy def yaa ngi ko gis mu leen naañe day tax da nga koy boo leen laajoo toon junni dañuy joxe moo tax droit des Diourbel day dem ci kanam association boobu mhm. doomu njaaram yi ci bokk lu mu leen laaju na dañ koy joxe ndax leen na ci seen bopp li mu membre yi tey ndax mën nga am suivre bi leen lëkkale lépp lépp waaw li mu membre yi nag macha allah yaatu na boo xoolee fii ci Argentine moom am nañ ci ay membre yoo xamante ni man na téeméeri personne fii ci Argentine boo demee Italie moom macha allah bari na Côte d'Ivoire nga dem Afrique bi Sud sax am nañ fa. nga dem euh, Amérique xawaar yu ñooñu waa waa Manchester waa waa Manchester team kasaalika am nañ fa ay membre nga dem Espagne maanaam que lim bi daal takku noog takkuwaay boo xam ne ñu ci biir. panel international bi non civil bi moom aw ma ko waaye lim bi na loolu loolu macha allah waaw 224 waaw te am na ci ñoo xamante ni tamit bokkuñu ci ci ci ci ci biir euh, panel boobu noonu. bari na macha allah. ndax doon ko léegi ci côté partenaire ak réew mi ngeen nekk ndax yéen a ngi xalaat ngir présenté ko leen yi nga xam ne entreprise leen wala ñoo xam ni tey borom mi doole leen ngir ñu jàpp ci lu ni mel. Ah, ci réew mi fii nii. Mm-hmm. waaw waaw fi ñu toll réew mi saa ne jun di ci di ci dox di ci wax ci ñu mel ne ñoon Fallou mbay ñi nga xamante ni ah, ñu ngi ci biir dëkk bi xam nañ leen ku ci mel ne sëñ Paate Grand Ndiaye saa ne ñu ngi ciy dox di ci wax ku ci mel ne Grand Ndiaye ah, Paate di lëkk lëkkaleeg doomu jaaram yi nga xam ñu ngi ci province yi. ak ñi ci ne ci suul bi nga xamante ni mu leen koy wax ñu ngi dégg di gis surtout bëgg fàllu ci Mar palaata di nuyu passage euh, Issa moom mi nga xamante ni moo ñu représenté fi ñu toll ca Mar te sëñ fàllu bëgg fàllu président bi nekk ci réew ma ñu ngi lëkkaloo ak gars yi def fii ñu ngi nag tàllal nag. doomu njaareem yi nga xamante ni ña ngi fii te suñu borom dëng leen ak tuuti ñu ànd ak ñun liggéey bi ngir Jurbel day dem ca kanam dem ca kanam ak kanam. ñu gërëm la ba xam naa li ñu amoon ci wàllu waxtu li ci des bëreetul tudd nga lu bari ci li nga xam ni moom moo tax Jurbel ca kanam jóg bi mu juddoo itam yàggul waaye def ngeen jëf joo xam ni itam wax dëgg yàlla jëf ju kawe la woote ngi itam ngir ñëpp ñu jàpp ci lu ni mel yéen ngi. jëm mën naa ko tuddee ensemble général wala réunion fii ci Argentine boo xam ne jàpp ngeen ko altine ngir doomi Jurbel yëpp daje fa ngir waxtaane mbir mi kon xam naa dañ lay bàyyi nga def ci benn appel rek bu ko defee itam bu ñu daaneele nag nga door a gën a duggaat ak ñun ci projet yi nga xam ne bëgg ngeen ko réaliser ci Jurbel bu ñu paree door a taataan leen ci kàddu bokk yi fi teew. dëgg la jërëjëf Gora ah, ñu ngi lay sant di la gërëm gis taxawaay ci droit de Jurbel day dem ci kanam taay woo ci depuis ba la ko waxee ba léegi. bàyyi nga sa yite ku ne xam ne heure bi daan na la fekk nga dalloo waa réunion bi nag ña ngi ciy woo doomu njaareem yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi mm-hmm. ñi di doomu njaareem sax ña ngi leen ciy woo ndaxte euh, lu rafet la te gis nañ ne doomu njaareem yi euh, nekk ci jàmm la nekk ak doomu yeneen dëkk yi nekk ci réew mi fii nii mm-hmm. ñu koy amal nag cotisation doomu njaareem yi réunion bi cotisation lañ koy amee bëgg nag ñëpp rek ñu ñëw ñu ngi leen ciy woo cotisation la ca setab ba altine la ñuy def chaque weer wu dee weer wu ci lënd bu ca njëkk rek moom la ñuy def euh, réunion kan nag ñu ngi ciy woo doomu njaare yëpp ndax am na luñ ci bëgg a tënk luñ ci bëgg a waxtaane loo xamante ni lu jëm ci mbalit mi ku ne xam na ne koppar moo koy def dindi ko te bëgg nañ ñëpp ñëw ci teew ñu mën cee jëf ñi nga xamante ne ñoo nekk ci province yi tim gën cee soññ membre yi nga xamante ne ñoo fa nekk. Mhm. kan nag ñu ngi leen ciy woo góor yow di la ci woote yi dëkk Jurbel bu ñu xoolee que ni ñu nee Touba yi na Jurbel ki nga xam ne moom la ñu yaakaar sëriñ bi xam nañu diggam ak Jurbel loolu yaakaar naa itam du ngeen ko bàyyee doomi Jurbel yi quand même murit fu murit nekk fu jullit nekk loolu sa loxo war na ko ci tàbbal. waaw ña ngi ciy woo nag loolu nga wax dëgg la doomu Touba yi ndax ku ne xam ne ne Touba ak njaareem benn Serigne Touba Jurbel la def fukki at ak juróom yonente bi gane si ko fa fukki fan ak juróom moo màggale ko fukki at ak juróom yi kan ñu leen ciy woo. te nit bàyyiwuñu ci euh, Jurbel ndax saa su nekk rek ñun ñu ciy xelal di ci dugal seen addiya. waaw ndaxte ku ne Touba rek di njaareem. ku ne Touba di njaareem. jàllee mbay mi jàllit yan sumb pour ci Jurbel yoo xam ni moo gën a taxaw ngeen. xalaat ni itam lii war ngeen ko dëgëral Jurbel war ngeen ko def Jurbel ci yan nga ci mën a tuddaat waaw projet làmp yi jàll na mbalin mi te buñ ci songee ba pare bu buñ ci jógee bëgg nañ def maanaam que ay wàllum mbay ak wàllum ah, transport yooyu yëpp ndax ku ne xam na ne bu ne ab dëkk wala ab réew li koy doxal mooy transport waaw mbay ak transport loolu bëgg nañ ko tey euh, incha allah rabbi rek yàggatul rek bu ñu jógee ci mbalin mi daal di lëkkaloo gaa yi nga xamante ne ñoo ci nekk tax am nañ ci ñu ci xarañ mm-hmm. ci ay mbaykat yoo xamante ku ci ci mel ne duma tudd sax tur bari nan mm-hmm. ñu ne ci dëkk àll yooyu yëpp te ñu ngi ci biir ku ci mel ne Cheikh moo Gueye Sané bi suñu coordinateur moom loolu moom maîtriser na ko waaw ñooñu ñëpp daal danañ ñëw ànd ak ñun ci liggéey euh, li nga xamante ne noonu lan mën a def ba am alal delloowaat ko ci biir dëkk ba ñu lay gërëm baax Cheikh fal Thioune secrétaire général bu Diourbel day dem kàddu yu mujj lan la waaw di sant rek euh, wax dëgg yàlla sunu kilifa yi nga xamante ne ñoo leen àndal. Mm-hmm. muy grand Ndiaye euh, di sunu trésorier ak sëñ Paate. Mm-hmm. ak euh, sëñ Baara di saar baay Allé di nekk sunu kilifa nekk ci biir. Mm-hmm. Baye Allé ñoo ngi koy sant bu baax a baax ak ñoom Momadou ak sunu grand yi yëpp yu nekk ci biir ak. paate bi nga xamante ni bëggoon na teew waaye dafa am gànt moo tax teewul di la sant nag di sant sunu jëwriñ yi nga xamante ni moo ne ci caméra bi Gambie bëgg nañ loolu gis nañ trang yi nga xamante ni defal nañ ko léegi nii ku ne xam na ne moom wax dëgg yàlla grand Ndiaye mi xolam sedd na ci lool ak sëñ Baara <laughs> waa di sant ñëpp rek di baalu ñëpp ak duñ ci juumee ci kàddu yi ci ñun la waaye wax dëgg yàlla waxewuñu ni ko woon nii di sant ñëpp di leen woo ci réunion bi nga xamante ne ña ngi koy amal gannaaw suuba ci seetab ba di ci woo doomi njaareem yëpp rek nga xamante ni bëgg nañu Jurbel dem ci kanam rek ñëpp ñu ngi leen ci woo ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ak ñoon fii ci dëkk bi di daanele foofu suñu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ci di dig jëlee ba beneen yoon jërë ngeen jëf. sëñ Fallou Mbaye seetaan nga waxtaan bi tukkee ci seen secrétaire général ci euh, sëñ Cheikh Fall du ñàkk ni da ci dool ay kàddu yu commentaire. asalaamaaleykum wa maa ngi leen di ziar bu baax. di leen balaax di leen balaax te di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di siyaare rek képp koo xam ne rek yaa ngi ci droit de Diourbel day dem ca kanam ñoo ngi lay siyaare di la jox sa waay kàddu yi nag mënut a bari ndax li ñu war a wax lépp Serigne Cheikh Fall Thioune wax na ko duñ def rek loolu di soññe mbokk yi nga xam ne ñooy mbokki njaareem te nekk ci diaspora bi di leen woo di leen xamal ne réew waa réew ma ñoo koy liggéey rawatina nag kon ab dëkk amuñu lu dul te it man de xam nga ku ma naw. Mhm. koo xam ne na dëkkam mel moo ko def man kooku laa naw. Mhm. kon maa ngi leen di woo yéen ñëpp ku ci ne ci sa doole sa xalaat ak sa xam-xam ngeen ñëw ñu ànd liggéey njaarim liggéey bi nag jafewul ndax parce que mbooloo mooy doole te yàlla dogal nañ mbooloo lañ euh, sas yi bëriwul chaque fin de mois kiñent lañ laaj carte de membre 200 pesos yaakaar naa kooku jafewul. carte de membre 500 pesos. deux cent pesos chaque fin de mois keñent kon yaakaar naa loolu jafewul kon ñëw leen yéen ñi nga xam ne yéenay doomi njaareem ñu ànd liggéey suñu réew rek moo solo ndax lépp lu ñu def lu liggéey suñu réew dafa ñëwut leneen kon maa ngi ciy woo ñëpp di ci tàllal loxo ñëpp ñu fas yéene ànd liggéey suñu réew di sant nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal fii ci jataay bi maa ngi leen di sant yéen ñëpp ndax ku lim doo matal waaye maa ngi sant ñëpp leen sant yéen ñi nga xam ne di yéen ñu yombalal lii ba mën a am kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal Touba TV fi ngeen bëgg mu yegg yàlla ko fa yàlla suñu borom yeggale. ci mm-hmm. barke Cheikh Mouhamadou Fadal. dañ ci kàddu am solo yi ñu ngi ak euh, Bara Diop seetaan nga li tukkee ci jataay bi ak euh, seen secrétaire général lan nga mën a dolli ci ci waxtaan bi. Ah, xanaa di santaat yàlla bu baax rek julli ci yonent bi sant Seexul Xaddim sunu wasila di jaajëfal nag wax dëgg yàlla euh, Serigne Cheikh Fall Thioune ak sëriñ Fallou mi nga xam ne. ñoo jiitu ci kàddu yi di jaaraamal bu baax a baax a baax sunu euh, sëñ njaay mi nga xamante ne bii mooy sunu jëwriñ wax dëgg yàlla mote ko bu baax a baax a baax daanaka nag wax ji moom xanaa tënk rek lay doon ndax daanaka liñ ci war a wax yépp wax dëgg yàlla góor yàlla yi wax nañ ko pare waaw mu nekk loo xam ne nag ñun Jurbel dafa bokk ci ñun nekk ci suñu xol ba tax na lépp loo xamante ne bii Euh, jar na ko rek ñun bu soobee suñu borom dinañ ca dem ba jeex tàkk te noonu ñu ci melit yaakaar naa ne ñi nga xamante ni bii ñoom lañ ko seqal yaakaar naa ne foofu la ñu toll. xëy na nag képp koo xam ne duggagoo ci it wala defagoo ci li nga ci war a def xëy na maanaam ñàkk xam euh, moom mën na cee mën na cee euh, do mën na mën naa doon ñàkk xam waaw ndax fi dëkk bi nga xamante bi yàlla dogal na fa a juddoo. fa nga defe sa lépp te boo faatoo fa nga bëgg ñu denc la fa yaakaar naa ne lépp loo am rek war nga ko faa mun a delloo maanaam ba réew mi jëriñu ca bu baax a baax a baax a baax waaw ndax tey jii bari na ñoo xamante ne bii tey jii li ñu yàlla baaxe xëy na ñoom amuñu ko waaw ndax bari na ñoo xam ni ci yeneen dëkk lañuy jóge ñëw di xeeñtu si Jurbel ngir fa yéene faa dëkk wala boog ñu fay sàkku bu ñu génnee àdduna ñu denc leen fa. waaw yaakaar naa ne kon war nañoo góor góorluwaat jaajuwaat te dëkk bii ñu nekk tey muy Argentine yaakaar naa ne boo fi doon génne ñi ñu dëkk Jurbel ñi